ñëpp d'abord ci perte de temps bi xam nañu contrainte de temps waaye nit ñi dañuy def violence c'est bon c'est bon alors voilà di gërëm ñëpp nag au nom de panel politique éthique et moral tey bés bi mooy li mu wax féddali kóllëre rek lañ doon def waaye tënku nag kenn du mujj puso mu réer njaboot gi yàlla yàlla teg loxom ci yéen ak ci ñun kàttanan ñu parce que Bocar Niang daan wax bu dee ñëwee yàlla na wut si Ablaye Wade moom Bocar yàlla na dee bàyyi fi Ablaye Wade bëgg fa la yam kon dafa ñu am lu ñu bàyyil te te ñii leer na yàlla ñu ngi ci 68e sortie kenn fekk ñu si ku dul yàlla ak suñuy poos suñu déem ak suñuy daxaar ñuy dajale tey ji actuellement waxuma la fii Bocar daan wax ñuy animé fii mais dem nañu sur le terrain ñoo ngi leen di jottali suñu nuyoo ngeen joxal ko seen ay wayjur de leen gërëm di sant di ñaan yàlla ànd bi yàgg li ngeen yaakaar seen papa yaakaaroon ko ñëpp yooyu yàlla na ngeen am lu kawe seen njort ci ëllëg bu ñu jëlee pouvoir ñun ñii yàlla na ànd bi yàgg di gërëm ñëpp di jégalu ñëpp kenn motul nag waaye maa ngi biral ni ñun amuñu noonu racine ñoo ngi leen panel politique éthique et morale góor jigéen mag ak ndaw Bocar Niang bu dellu si woon fii duñu rus parce que la mu waxoon rek ca la ñu nekk ñaari stade Ablaye Wade Karim mobilisé organisé retour de Karim Karim a ngi ci yoon bi leer na ñëpp. ñu ànd bokk ndeeg bàyyi bu wuti ndam li jox ko karim di len gëreum di len sant di wax assalamu alaykum wa rahmatullah you